lundi 12 euh, octobre 2020 fii ci Feeling Dakar li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci Viviane mi nga xamante ne nii saa yu xëyee day gën a rajeunir euh, nga xamante ni daal nañ koy andil première kado bu euh, am solo ki nga xamante ni moom moo di Aram Touré tamit daal dina dégg alxayri problème ki ak Cheikh Pape Cheikh Diallo origine problème bi dinañ ci daal di wax ki nga xamante ne ni moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour moom tamit euh, ndogal gi nga xamante ni daan na ko euh, jël ci lu ñeel euh, gàmmu gi loolu tamit dinañ ko daal di yaatal nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diop xaas wàllum escroquerie buñ koy tuumal dinañ ci andi ay leeral ak ki nga xamante ni moom moo di Ahmed xalifa Niass visite bi nga xamante ni tamit Serigne mbay Sy Mansour daal di woon na koy amal foofa ca Kaolack moom tamit daan na ci yëkkati ay kàddu mbokk internet yi lii moo gën a fës ci xibaar yi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di yaatal gi mbokku internet ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm gannaaw bañ leen nuyoo li gën a fës ci xibaar yi comme niñ leen ko waxee woon ca euh, bopp ba rek euh, moom moo di euh, ki nga xamante ni moom moo di xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour. gannaaw ba nga xamante ni nag euh, dañoo nekk ci benn contexte bu euh, particulier mu di euh, coronavirus ba tax na sa ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbaye Sy Mansour moom nag ci communiqué ba nga xamante ne ni cellule de communication bi nekk ci Zawiya Tijaaniya bi nag daal dina annoncé rek ni que Serigne Mbaye Sy Mansour moomule dina def benn déclaration bu am solo euh, ni ki euh, suba ci euh, talaata bi ci amphithéâtre bi bu esplanade bu mosquée bu Tivaouane boobule ba na nag gàmmu gi nga xamante ni nii dina am ci guddib 29 jàpp 30 octobre mille 2020 bu ñu sukkandikoo ci ay médias yu bëri ñoom daal lu ñu daal di xamle rek moom moo di édition 2020 bi nga xamante ni nii daal dina euh, tombé ak euh, coronavirus bi euh, dinañ ko daal di célébrer à domicile moom gàmmu boobule dañ koy daal di célébrer à domicile ndax nag buddu yuñ daan amal sak waajtaayoo gàmmu loolu nag du am bu ñu sukkandikoo ci yenn médias yi buddu nag nekk cérémonie de récitation yu poème religieux yooyu le du ñu amal li nga xamante ni tamit moom moo di euh, cérémonie officielle euh, ba noppi euh, fermeture mosquée bi dinañ ko daal di maintenir information boobu nag waa E-Media ñoom ñoo ko daal di fësal. ba tey nag dañuy desandi ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour moomule nekk xalif général des Tidianes moom nag Serigne Babacar Sy Mansour ni ki samedi dafa daal di demoon fi nga xamante ni moom moo di Kaolack ngir présenter ay condoléances am. ci euh, famille euh, Baye Niass gannaaw ba nga xamante ne nii euh, kii di Cheikh Ahmed Tidiane Niass dafa daal di génnoon àdduna mu nekk acte boo xamante ni nag ñi ko saluer dafa daal di bëri ku ci mel ni Ahmed xalifa Niass moom nag daal di na jël benn décision boo xamante ni dafa daal di rëy lool moom Ahmed Khalifa Niass nag daal di na yëkkati ay kàddu kàddu yu mu yëkkati nag moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour moom nag sage la moom nag Serigne Babacar Sy Mansour daal di dina solo dàllam daal di effectuer benn visite inter Tidjane entre ñoom Tidjane yi moom nag mu nekk acte bu nga xamante ni nii daal dina euh, daal dina jeexal li nga xamante ni moom moo di euh, divergence ak coow yu sew yi nga xamante ni nii euh, daal dina woon dox ci diggante ci seen diggante ci lu ñu weesu mun ci li nga xamante ni moom moo di ñaari côté yëpp mu nekk côté Tidjane yu Tivaouane ak li nga xamante ni moom moo di yu Baye ba tax na moom Ahmed xalifa Niass euh, loolu la daal di xamle euh, mu ngi daal di continuer waat rek di xamle waat ni que ñoom nag duñu hésiter ci li nga xamante ne ni moom moo di seen tour tamit rendre li nga xamante ni moom moo di politesse bi waaye nag moom Ahmed Khalifa Niass bu wéyalee rek lu mu daal di xamle rek moom moo di jëf ju rafet ji nga xamante ne ni Serigne Babacar Sy Mansour daal dina koy def ñoom nag dinañ ko ko rendre ndax sax yàlla nee na nit ko bu la yow tamit fay ko ci anam euh, bu ma euh, gën a euh, sellee dañuy daal di wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di jëkkëru sumbul boobule di Abdoulaye Diop Xaas ñoom nag gannaaw ba nga xamante ni seen mariage defagul sax weer waaye nag mel na ni coow li bëri na lool ci ñoom ndax nag gannaaw ba ñu sëyee ba noppi rek sumbulu lañ doon ŋàññ ak sëyam boobule naan day yàgg ak du yàgg waaye nag bii Diop xaas euh, ba tax na nag euh, moom euh, Abdoulaye Diop Khass jamono ji nag moom la ñuy awte awte di ko jiñ li nga xamante ni moom moo di wàllum escroquerie ba tax na moom Abdoulaye Diop Khass moomale moom sax daal dina yëkkati ay kàddu di leeral mbir yi ba tax na sax ci loolu dal di woon nañoo tuumal ki nga xamante ni moom moo di euh, Ndoye Bane waaye nag moom euh, Abdoulaye Diop Khass daal dina na défendre ki nga xamante ni moom moo di euh, Ndoye Bane di xamle rek ni que Ndoye du ci lenn moom nag daal dina na affaire bi yëpp fu mu jugee ndax nag benn journaliste ba nga xamante ni moom muy l'observateur moom moo ko daal di defaloon benn entretien ci loolu nag mu daal di koy euh, poser ay question ci euh, jaar-jaaram ak lépp euh, waaye nag naka noonu la journaliste bi daal di ëlbatikoo tamit daal di dem ci li nga xamante ni moom moo di mbokkam yi ñi ko jege foofu ca Thiès ak li ni daal di leen tamit laaj ci Abdoulaye Diop Khass mbir mi noonu la demee waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Ndoye Bane nee na deful dara bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diop xaas moom le soxna Aïda Diallo moom nag soxna Aïda Diallo gis nañ ko nag ci màggal bi mu daal di def màggal bu am solo ak ay coppite yoo xamante ni nii daal dina ko ci andi mu nekk ay changement yoo xamante ni nii tamit daal dinañ ko ci gis ba na nag kii di soxna Adja Saliou moom nag dafa daal demoon ziare ki nga xamante ni moom moo di euh, soxna Aida Diallo euh, waaye nag moom euh, soxna Adja Saliou moomule daal di koy yóbbul ay teranga yoo xamante ne ni ay teranga yu macha allah la ñu koy gis ci image yi mu nekk la nga xamante ne nii kii di soxna Aida Diallo daf si kontaan lool ndax nag gis nañ ci photo yi nga xamante mu ngi wone li nga xamante moom moo di mbégteem ci li nga xamante ni moom moo di uh, soxna Adja Saliou uh, jëf ci nga xamante ni daal dina koy uh, def ba tey sax dañuy desandi ak ah, ki nga xamante ni moom moo di ah, soxna Aida Diallo euh, ci li nga xamante ni sax moom moo ñeel ay euh, addiya euh, moom nag soxna Aida jàlloo moom ay taalibeem daal nañ koy defal lu doy waar daal di koy jox addiya bu takku ndax nag ca ëllëgu màggal bu Tuuba rek taalibe soxna Aida jàlloo yi ñoom nag dañoo daal di def tous les moyens ngir bégal ki nga xamante moom moo di di eh, seen eh, guide spirituel ñoom nag daal dinañu may soxna Aïda Diallo li nga xamante ni moom moo di somme bu toll ci eh, cent trente neuf millions de francs CFA ak benn 4x4 Lincoln Navigator boo xamante ni deux mille vingt la 4x4 boobu sax boo ko xaymawee valeur bi mu ngi toll ci soixante dix millions ak benn villa pied dans l'eau boo xamante ni mu ngi toll ci mille deux cent mètres carrés loolu nag ñoom dañ ko rek daal di jox addiya ko def nag moom moo di ay euh, taalibe euh, soxna Aida Diallo moom la lu mu ci jublu rek moom moo di euh, daal di bégal ki nga xamante ni moom moo di seen guide spirituel di soxna Aida jàlloo bu ñu noppee ci loolu nag dañuy daal di ñëwaat ci li nga xamante ni moo di problème mu bu dox ci diggante Kya Aidara ak ki nga xamante ni moom moo di Pape Cheikh Diallo ñoom ñaar ñëpp ñu nekk foofu ca télévision Futurs Médias moom nag ginnaaw bi nga xamante ni jamono ji yëpp seen euh, problème ñu ngi koy exposé ci li nga xamante ni moom moo di presse bi ak réseaux sociaux yi ñoom nag dem nañ ba jot si. waaye nag euh, ci benn source bu nga xamante ne nii euh, moom mu ngi ñuy xamal rek ni que euh, problème bi fu mu jugee rek moom moo di moom Pape Cheikh Diallo dañ ko daal di agressé woon foofa ca États-Unis ba tax na nag daal di nangu ay téléphone am ak ay papier wam ba tax na moom Pape Cheikh nag ci noonu la ñu daal di jëlee ay information yu doy waar daal di koy transmettre ki nga xamante ni moom moo di soxnaam di ay dara ci loolu nag Kya daal di euh, sukkandiku euh, daal di commencé di euh, def chantage ki nga xamante ni moom moo di Pape Cheikh Diallo ci li nga xamante ni moom moo ñeel information yooyu nga xamante ni arrangé wu benn yoon Pape Cheikh mu nekk ay information yoo nga xamante ni ni ay information yu doy waar la ci noonu la ko daal di commencé chantage di ko wax rek ngir mu utal ko li nga xamante ni moo di villa bu Bakane ngir ñu dëkk foofu noonu ak li ba tax na sax loolu média yi daal si jot mu nekk la nga xamante ne nii bokk na ci euh, li euh, gën a yokk problème ci seen diggante ñoom ñaar bu ñu noppee ci loolu dañuy daal di wax nag ci look bu bees bi nga xamante ne ni Viviane daal dina koy def moom Viviane nag jamono ji nag mel na ni yaramam dafa tàng ndax nag saa yi ñu xëyee rek daal di koy gis di ko gën a admirer ndax li nga xamante ne ni moom moo di euh, colinam ak ay look yi nga xamante ne ni moom euh, daf koy daal di euh, dégager moom nag Viviane daal di na defaat benn look boo xamante ne ni nit ñi daal di nañ koy bëgg lool daal di na koy soppi. lool mu nekk loo nga xamante ni nag euh, ki bettul kenn ci ki nga xamante ni nag ndax moo di Viviane ndax moom nag à chaque fois dafay daal di euh, dégager li nga xamante ni moom moo di style bu euh, bees boo xamante ne ni saa yu ko defee rek dafay neex nit ñi tax na moom Viviane moom nag saa yu xëyee rek dafay daal di gën a rajeunir mu nekk la nga xamante ni nit ñi daal di nañ koy sopp lool ci moom. ñu wax nag ci euh, nouvelle bu neex bi nga xamante ni daal dina euh, dal ci kaw euh, Mbathio Ndiaye mu nekk nouvelle bu neex boo nga xamante ni ni mu di Mbathio dañ ko daal di àndil rek niki samdi may gu njëkk kii di euh, Baye Niass Ndiaye nekk ko nga xamante ni ni opérateur économique la kenn dootu ko présenté euh, ci réew mi ak foofu nga xamante ni fa la dëkk di euh, Kaolack Baye Niass nag daal dina def lu rëy ndax daal dina jox Mbathio Ndiaye li nga xamante ni moom moo di benn oto boo xamante ni marque Ford la ak li nga xamante ni moo di téléphone portable bu bakkane cinq millions de francs ak li nga xamante ni ni moom moo di bague en diamant ak parure en or la daal di terale ki nga xamante ni moo di Mbathio euh, Ndiaye waaye nag euh, Mbathio nekk naa nit ku nga xamante ne nii daal dina ci euh, kontaan lool ba na sax moom euh, Mbathio daal dina dénk rek ay kàddu suñu confrère yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca yéenekaay bi di l'observateur daal di leen xamal rek ni que xaalis ak matériel yi nga xamante ne nii bàññis daal dina ko koy jox rek nekk na la nga xamante ne nii yitteelu ko li ko yitteel rek moom moo di waa ji da ko bëgg te loolu moom moo amal solo moom Mbathio kàddu yooyu la daal dénk suñu confrère yu nekk ca l'observateur ba tey dañuy desandi ci li nga xamante ni moom moo di carnet rose gannaaw ba ñoo jogee ci Bathio Ndiaye dañuy daal di wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Aram Touré moom Aram Touré nag nekk journaliste foofu ca télévision future Média moom nag mu ngi doon def info au soir foofu ca TFM moom Aram Touré nag daal dina marié moom nag Aram Touré moomule daal dina nekk madam Ngom ba na ñu koy souhaiter un heureux ménage di ko ñaanal sëy bu barkeel ak njaboot bu barkel barkeel. bokku internet yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar.